asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivi sur Kewel Info du nuyu kilifa di nekk kilifa aada yëpp du nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daayatu Moustarchidine wal Moustarchidaat mooy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla ar ko yàlla sàmm ko yàlla may ko gudd fan ak weer si maari dundal suñu capitaine mam Cheikh mam Babacar di ziar kilifa diine yëpp yëpp yëpp tey nag ñu fii si Géejawaay ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2. gannaaw ba mu bëree kombaam ak Siteu Lac de Guiers depuis dañ koo gis ñu fas yéene waxtaan ak moom combat bi nga xamante ne moom mooy Modou ak Ama Baldé Modou ak Boy Niang mu nekk combat boo xamante ne nag Lac de Guiers bëri na ak Modou bëri na ak Boy Niang ñu fas yéene waxtaan ak moom seen i état physique ñu waxtaan ak moom combat bi donte nag lépp ci yàlla su loxo yàlla suñ borom la ne moom mu kii woon ñu ko analyser ñu ko di ko jaajëfalaat bu baax a baax ndax dañ ko fekk mu tawat mais rien que pour nous faire plaisir surtout les les internautes wax dëgg yàlla looloo tax mais maa ngi koy jégluwaat bu baax a baax a baax a baax père maa ngi lay waaw maa ngi lay fay maa fii di nuyu wax lu làmb di nuyu képp kuy bëgg la déggee numéro 2 di nuyu waa Cité bi waa Guédiawaye ak fans Lat fépp fu mu mënti nekk maa ngi leen di jaar baax a baax. Lac de Guiers numéro gannaaw ni ma ko waxee woon sànq fan yi am na ay làmb yu ñu génn ko gisee par rapport ak yéen dañ leen doon dégg ñu làmb doxul doxul mais instant bi nan ko gisee làmb. waaw alhamdulilah yëngatu na yëngatu parce que ñun tamit comme lii mooy suñ gagne-pain yaa ngi dégg combat yi neex ñu ngi am gaa yaa ngi bëri seen biir sant yàlla daal mais làmb daal mu ngi yëngatu. te ci kanam rek la jëm incha allah. Mm-hmm. fan yi ñu génn am na ay combat yoo xamante ni nekkoon na suñu ginnaaw ku ci mel ni Diène Kairé ak ki nga xamante ni Zarko nan nga gisee combat boobu noonu. waaw combat bu neex na combat bu neex la vraiment di di encourager suñu rakk muy Diène di ko na làmb nii la da ngay yaakaar yàlla tas sa yaakaar mais day sant yàlla baax a baax def na lu mu waroon def yëpp yaa ngi dégg préparé ku ko xool nga xam ne préparé na combat am kon donc na góorgóorluwaat. wax na ko làmb mu ngi ci kanamam ñu ngi ko cee ñaanal baax a baax di suñ papa Kayre yaa ngi dégg ku ko xool nga xam ne ne bés boobu noonu ñoroon na ko trop mais yàlla moom lu mu ne déet rek déet la te ne mu ne waaw la waaw ñu ngi encouragé Zarko ndam itam yàlla na ko jig waaw. gannaaw ci loolu am na beneen combat boo xam te ni nit ñi dañ ko doon xaar muy combat Ama Neex ba tey nan nga gisee combat boobu. waaw euh, combat petit la boobu tamit combat bu neex la waaw ah, combat bu neex la mais tamit peut-être bon booy jël adversaire il nga xam ko bu baax waaw bul ne waaw ah, boo sama gis-gis man est-ce que xam na ko sax à cent parce que ama neex kenn du ko humilier kenn du ko kii kenn du ko sous-estimer waaw ama neex moom mooy mbër bi nga xamante da ngay yaakaar ne ragal ne waaye ragalul lépp lu muy def rek lu wóor la waaw moo tax daal euh, adversaire boo koy jël daal. ne la na boo demee ba jël ko même bu fekkee ne moo la jiitu ci làmb sax nga gën ko doon xale bàyyi ko xel waaw ndax mat mag mën naa bàyyi jëm réew waaw. gannaaw euh, ci loolu amaate beneen combat boo xamante ni muy Reug Reug ki nga xamante ni moom mooy Bombardier nan nga gisee combat boobu mu nekk combat boo xamante ni nag bari na ay polémique comme da cee am Reug Reug daan bi mu daan Bombardier c'est trop facile mais loolu nan la combat bu neex la combat boo xamante ne ñëpp dañ ci doon xaar. xeex yaa ngi dégg te yàlla def na combat nii la yombee waaw dafa am ñoo xam seen version loolu lay joxe nag ah mais tamit am na ñoo xam ne seen version dañ naan du loolu yaa ngi dégg man nag sama gis-gis moom mooy ñëw nañ bëri nañ xam la yàlla may na kii ndam rëg ndam bon il a fi continuer ah Bombardier suñu grand def na fi lu ne yaa ngi dégg lu nekk la fi def ku nekk ñaari yoon roi des arènes kooku def daj nga lépp kon donc ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan. mu xoolaat a nekkaat ci kanamam rek waaw. gis nañ ki nga xamante ne moom mooy mbaax jee di ko nuyu bu baax a baax def benn sortie ne benn mbër lam ci Sénégal muy la de Guiers manum Lac de Guiers mooy bëre mu génn def ay sarax ba neen dem na benn instant sax soo amee combat dañ naan ko sa mbër bi moom mooy bëre témoignage yooyu mu def si nan la la def. waaw euh, sama maman la sama yaay maa koy nuyu en passage mu nekk yaay ju baax ah ndax ba ma ko xamee ba léegi. def euh, naa bi may mujjee gisanteeg moom maa ngi mujjee gisanteeg moom ci dëju grand papa Dia Pape Dia yaa ngi mu nekk sama yaay ju baax wallahi lii yàgg na ma ko wax nag yàgg na wax na man maay mbërëm yaa ngi am na doom dëgg la doomam day bëri mais loolu yàlla moom moo koy def man sama gaale amoon na koo xamante ne sama jarbaat la ba may bëreeg sax dañuy tooñante waaw loolu yàlla moom moo koy def. kenn mënu ci dara maa ngi koy ñaanal sama yaay jooju yal na yàlla guddal fanam may ko wér ak gudd fan seetaan na émission bi ba ma xoolee ndeysaan sama yaram doon daw sax yaa ngi dégg jour boobu je me rappelle très bien ba def naa ba combat Bombardier di ces trois jours Bombardier xoolee portable dina gis na woowoon naa ko téléphone pour bëggoon wax ko pour mu passe ma sama yaay ma sant ko bu baax baax a baax ñaanal ko yàlla après dama ko woo jotuma ko sax waaw mais daal vraiment sama yaay jooju daal yal na yàlla guddal fanam. yàlla na ko yàlla may wér a gudd fan yàlla bàyyi ko njaboot gi mm-hmm. waaw yaay ju baax la Bamba Dieng pëlewu ma dara ci moom mm-hmm. maa est-ce que pëlewu ma ko sax. Ah, mais est-ce que loolu moom moo tax ni Lac de Guiers ak Bombardier duñ bëri. ah man de li ma gën a poussé waat nag ah, tax na ci sama yaay jooj moo tax du ma bëri ak Bombardier mm-hmm. parce que ba ma ñëwee kër ga foofu am na kàddu yu ma wax te man gor la waaw mais avant loolu nag am na fu wax gi jógee yaa ngi de avant may dem di gisanteeg mère bi wax gi am na fu mu njëkk a jógee. waaw mooy Bomba jëfa ñëwoon kër ga ndeysaan ba mu ñëw indaale ma ay cadeau mu ci lañ toog ñuy lekk ginaar mu naa ma xam nga lii la lii mooy ay boxeur ni ginaar gi def ñu loxo yi ne jamono ko ay booy lañ woon après léegi ci la waxee maam mu ne àdduna ne ma bëreeg la de guerre boobu dugg na suñu diggante man ak moom mm-hmm. après ci laa demee mbuur sama kër maam ba ma fa jógee ma jaar këram nag dem toog wax ak moom ci la yaayam waxee yenn kàddu yi. yaa ngi dégg boobu laay maintenir ba tey mhm. waaw. tax euh, yéen ñaar waaw dafa am kàddu yu ma waxante dem si yàlla mam ma yaa ngi dégg ak la dëgër waaw moo tax daal foofu daal dara xaju fa daal waaw uh-huh. te boobu maa ko bëggal sama bopp. loolu for na euh, ñu duggaat ci li nga xamante ni bala ñoo ñëw ci Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang bu ki dem Boy Niang tamit say poulain bëree ko ci benn cat bu waalo bëri na Baye Ma Ndiaye ak Jackson combat yooyu noonu nan nga ko gisee eh, muy caat eh, bu wàll ak Valdo ñu gis ni caat ku ne caat ne Lac de Guiers numéro 2 combat boobu nan ko gisee. waaw ku ne caat na Lac de Guiers numéro ku ne caat na Alioune Seye mm-hmm. ku ne caat caat bu waalo bon alhamdulilah caat ah, moom nekk na rakk boo xam ne rakk bu baax la mm-hmm. rakk bu respecté ay magam rakk bu jox cër magam nangoo sonn ci bésu nit nag ah mm-hmm. muy sama bés di bésu Alioune ak bësu képp koo xamante ne am nga combat. yaa ngi dégg préparé na ko xool caat jour boobu na ba mu sumee xam nga ne kii pare na pare na parce que avant avant combat am di ñëw sax avant combat am di ñu da doon contact ak ñun yaa ngi ñun caat amuñu lu ñu koy tiital ci làmb wallahi amuñu dara loo xam dañ koy tiital parce que ñun xam nañ bëri bi nekk ci moom xam nañ jom bi nekk ci moom xam nañ bëgg xeex gi nekk ci moom man jour boobu bu ma ko gisee sax bu ci biir gii mu taxaw di shadow laa ne kii dafa ñëw pour xeex ak moom balaa mu bëri waaw mais tamit bon bésu euh, bésu am du bésu am nañu koy waxee sax jour bi ngay yaakaar ne yow da ngay am yaa ngi dégg jour yàlla da lay xañ parce que am na lu tax yàlla xañu la yal na ko sante yàlla mu préparé waat xam ne làmb moom allah kulli àll dina ko ca fay coono parce que xam nga lam moo tax dafa bëgg yaayam caat loo wax rek même bu ñëwee sama kër fi sax boo waxee mu ne sama yaay te xam nga ne ma meloon sama yaay moo tax lépp lu mu wax bu nee sama yaay rek su ma bëggul def dara sax damay góor def ko parce que boo waxee yaay rek yaay moom lépp la te xale boom bu ne dafa bëgg defal lii yaayam jàppale ko nga defal ko pour mu am pour mu yegg fa waaw te incha allah te incha allah bu neexee yàlla bu gënee góorgóor dina fa yegg na gën a góor bu mu découragé làmb noonu la gaañ la per la yaa ngi dégg mais heure bu jógee rek na na yaay ñaanal ma mu xool li wanan di mujj gi bëtam beneen bi mooy sa doom sa xarit Jackson bëre ak soq mu nekk combat boo xam ni dama la seet si woon nga ne ma maag moom combat bi moom moo ñu dosee donte da ngeen da nga doon préparer combat dégg nañ ko moom mu ne yaayam moom moo ko dénk la de guerre numéro de ñu gis ni mu nekkoon combat bu mu importance ci carrière am ñu gis ni mu ko gañee ak façon ni mu bëree ak ni mu ni mu daanee loolu nan nga ko gisee ndax chaque jour da nga doon wax Jackson bëreegul. waaw xam nga samay wax mu du fanaan àll. parce que tey euh, daan naa préparé Jackson maa ngi koy félicité en passage daan ko préparé combat comba bu ñu mënta pare dama daan ko saa waaye bi macha allah nang nga am ndam yaa ngi na daf fekk ne damay préparé comba muy préparé combat yaa ngi dégg combat bi ñëw na ñëw na ñaari yoon ci man contact yaa ngi dégg. pour nga xam ne borom jom la ba ma ko bëree ba ma ko daanee sax day gis mu ne amaguma doole xaaral ma ñëw nga xam ne kook am na lu nekk ci boppam bi te am na kàddu xam ne waxante nañ ko maak ma ne ko bii mooy suñu dernière préparation maak yow mooy contre soq bii nii dama ne ko bii moom comme gunge naa la ba nga yegg fii yàlla def na ne tey bu la yàlla mayee ndam di nga mën a yóbbu sa bopp moom tam mu nekk koo xam nit ku jàmbaara ah. ba ko waxee mu ne ma papis moo dox sama diggante ak ma gungee ba combat bi jeex rek bu ñu amee ndam jeex na yaa ngi dégg mën naa demal sama bopp te alhamdulilah sant yàlla parce que ndénkaane dafa fort bëgg naa ne bés bu ma génnee àdduna ba ma demee ci yaayam mën a xam la ma koy wax la lan ma dénkoon lii la woon toppatoo ko ba yegg naa fi ñu war a yegg maak moom yaa ngi dégg te jag yàlla na ko yàlla jàppale ci lépp ci carrière am li ci des. na ci gën a góorgóorlu nag parce que lii phase A la moom eggagul B eggagul C eggagul yaa ngi dégg phase bi gën a nekk mu gën a métti mooy phase D boo déggee D saa yi phase yooyu métti na de yaa ngi dégg nga gën a góorgóorlu nga xam ne ne instant bi yaa ngi soog a teg sa tànk ci buntu làmb. kon moom nga dama leen doon wax naan jag seen bëreegul. waa damay bàyyi kumpa bi ci des ma bàyyi ko ak amateur yi yeeg ak yaa ngi dégg parce que man taxaw naa seetaan naa ko yaa ngi dégg jàmpata daal moom contact nañ kon donc nit ku nekk ak qualité boo xoolee ni da ngay xam ban genre nit la waaw. mais ni mu daanee soq prise bi ba ko defee dañ naan soq moo daan ñu gis ne Jackson daan na soq tànkam laalul suuf ñu ne lit dégg nañ ko moom mu ne xamu ko sax ñu gis prise ba mu ko daanee ci kaw la nekk mais moom tam daraam laalu suuf daraam daraam te gis nañu kii moo déclenché. ni mu la jaaxalee noonu la ma jaaxalee man. Ah. <laughs> man comprendre ma dara pour te dire la vérité. jékki-jékki naa gis naa soq dóor na ko tànk. Ah. Jackson di waaj a samp loxom bi tourné. yaa ngi ne tourné na saa waay ak poids am mu njëkk a wàcc. loolu mooy wan ne préparation ba préparation préparation bu baax la. parce que lépp la jàng lépp mobilité yëpp souplesse yooyu yëpp def na ko ci boppam <clears throat> loolu la. fu mu jëm Jackson. <clears throat> fi mu jëm koy gars yi xam nañ ko staffam xam nañ ko. boo jox combat. ba ma ko doon jox combat. ah yegg si na ci yenn gars yi de ci kaw. ndax xam nga bëgguma taxaw di citer euh, benn turu mbër. yaa mu yaakaar ne dara la quoi. fekk du loolu xam nga ni tamit bu amee staf yow li la war sa diggante moom mooy entraîné ko jàppale ko yaa ngi dégg mais staff am ñoom xam nañ baax fu mu jëm waaw maa ngi nuyuwaale am am waaw am moom nit ku baax la nit ki sonn ci Jackson waaw nit ku baax ak nit ku dëggu nag waaw am yàlla na ko yàlla jàppale yàlla may ko xolub muñ nag parce que mbër tamit boo ko yoree lu nekk da koy dégg lu nekk da nga koy gis. mais nga la tan xam lépp te mu xam ne moog Jackson la yaa ngi ne continuer loolu mu jàpp ko xam na rakkam la lu nekk da nga koy dégg par force da ngay dem ba da ngay découragé ci mbër mi mais nga la bul découragé c'est yàlla ñu baal ma nodd gi jeex bu ñu noddee parap ñu yeggal ñu waxtaan. Uh-huh. yaa ngi dégg am na na yor xolam muñ nit ku tuuti moom foo ko fekkee yaram bi day gaaw a tàng. waaw te moom moom nitu jàmbaar la daal jàmbaar la. waaw jàmbaar dëgg la. Mm. parce que lépp lu muy dem da ci dem ak xol. Mm. waaw jàkk nag nanga jox cër am. Mm. na nga jox sa mag jooja cër bu baax a baax a baax nga fonk ko jàpp ko ñaari loxo. waaw na ko jàpp jàpp ko ñaari loxo. li ma la wax téere la de fexe leen bu leen jotee ci benn boor. waaw lépp loo mën def def ko te yàlla tax sa diggante yow ak moom waaw yàlla na leen yàlla boole. yàlla tappe xol yi ñi ngay àndal na nga fonk leen bu baax a baax a baax ñi sonn ci yow na leen fonk bu baax nga jox leen cër nga xam ne ñii yaak ñoom la ba dara doonu dara waaw yal na leen yàlla jàppale sa carrière yal na ko yàlla yeggale jàmm ci barke Seydina Mohamed papa am yow di la jaajëfalaat bu baax a baax ah. le messi ah ku ni ma koy waxee rek ak yii père am kenn du yow de jinne ji ma ne jinne ji laa ko tuddee di ko jaajëfalaat bu baax a baax ah. mu nekk nit ku am fula nit ku baax koo xamante ni day sonn ci mbiri jàmbur man moom dama koo sonal dama koo di ko ñaanal jàmm rek papa am kooku noonu <laughs> ma wax waaw ah, naa la eh, bu ñu jógee foofu nag eh, comme que làmb yee passé nañ da dañuy dugg nag eh, ci ki nga li nga xamante ni moom mooy combat Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy booy Niang mais ba dañoo ñëw ci Modou lu booy Niang Reug Reug dafa daan ñu ne Reug Reug Lac de Guiers donte nag moom tey moom tuddul la de Guiers laaj nañ ko sa digganteeg Lac de Guiers mu ne 30 la ak ak 50 mu ne moom du tàngal ceeb la de danga da nga mayoon chance Siteu Reug Reug def ay preuve moom egg si daan ki nga xamante ni deux fois roi des arènes la def. te la dëggeer ku ki indiloon avance ki nga xamante ni moom mooy rëkk est-ce que pare na pour bëri moom. nga ne nee na la. nee na yow la moom 50. mom 50 30 du bëri luy loolu. mooy ñi nga xamante ni dañoo bëre woon ñamoon roi ak kii ba pare ñu bëreeg ñi nga xamante ñoom ñoo yor couronne roi bi nee na moom du tàngal ceeb. même bëreeguma couronne roi de verre de. bëreeguma ak moom. bëri nga couronne. waaw trente daa bëri sax te mu ne dix rek. Hmm? mais ñu ne moog la guerre combat waaw gars yi seen bëgg-bëgg la wax rek mais ne ku nekk ak bëgg-bëggam waaw ñun kenn mu leen tere seen bu ñuy wax seen bëgg-bëgg peut-être am na lu tax ñu ne rek la guerre yaa ngi dégg waaw mais ñoom nu ñu def boo ne rek la de guerre xam naa comprendre naa xam naa lu ñu bëgg hmm. mais t'inquiète loolu. bu ñu bëgg bu ñu yàqamti du bu ñu yàqam te amul problème mais daal en tout cas ñëpp di xaar moom la ñuy xaar ah man moom laay man moom laay xaar keneen yeneen bëri ci géew gi yëpp ñu nekk ci arène bi yëpp loolu la ñuy xaar. waaw kon doon nañu xaar loolu rek. ngeen xaar combat ci leneen. waaw man ci loolu laay wax. parce li ma li ma war a def def naa ko kan. ngir boo doo laaj kooku ba léegi ñaanaguma ci njëkk de. grand ñaan ma ci njëkk rek ba ma ñaanee ci njëkk rek ma ñëw. tànk ñaan ah njëkk rek. ah ba mu ci tollee ma ko doon ñaan njëkk mu bañ. Ah. ah léegi man daf may ñaan ci ma pauvre. ma pauvre en grand. Modou Lo ak ki nga xamante moom mooy Boy Niang noo gisee combat. waaw combat bu neex la combat grand contre la waaw. combat bu neex sax combat boo xamante ne mm. kenn ki day calculer. kenn ki dina calculer mais bu ñu demee ba ci biir calculam da koy naan ayca calculer tuma. moo doon calculer ba ci biir bu demee ba ci biir ba virantore soof day jékki-jékki na ko ayca dootuma calculer hmm, booy ñaan ak moom ak lu mu metti métti métti day continuer di liir ba ak lu mu métti métti métti métti day continuer bu fekkee da danga daw di ko jël sax boo ko jëlee sax day taxaw di xool. ni nga ko jëlee boo ci bu ci yeggee nan lay def ba génn ci waaw. Ah, ñu gis ni bari nga ak bari bëri nga ak Boy Niang mais ñoom ñaar kan moo ci gën a naqaree bëreel. kan moo ci gën a naqaree bëreel ñoom ñaar ñëpp naqaree bëreel ñoom ñaar ñëpp naqaree bëreel tam ci biir naqaree bëreel boobu yëpp yëpp yëpp maa ngi koy wax bële xaw ma xam gars yi ko nag pour dara parce que ñoom ñaar yi fi may adversaire lañ mm-hmm. yaa ngi dégg nit bul na rek. maa ko jiitu ci làmb maa def nii maa def nii maa la mën maa lay daan bàyyi ko xel bu baax. waaw waxuma ko pour dara nag. ci lépp parce que la ngay foog na moo nekk ci mbër mi mënul nekk ci mbër mi la ngay foog na nekku ci à cent pour cent fekk ma nga ko duy ba mu fees mu téye ko toog di xaar faraluma ci kenn ñoom ñaar ñëpp ndax samay adversaire lañ. mais daal Modou Lo lépp lu muy def na bàyyi xeex ki muy na bàyyi xel ki muy bëreel bu baax a baax. kon Modou Lo kon Boy Niang du Ama. na wute nañ bëre ñoom ñaar bokkuñu ñoom ñaar nañuy bëre bokkul bokkul de ni ñuy bëree bokkul de waaw waaye combat bi ma gis nii. bu arbitre bi sifflé ba ñu commencé léewtoo yaa gis kenn kiy touché moromam kenn ki màmm ci kawam mais ay buy màmm na xam na muy màmmee la. am moo xam te ne bu duggee xeex boo xam te ne baaxul mën na cee jëlee lu déedéet waxuma dama ne. combat bi li ma gis man. am na kenn koo xam ne buñ ko ci touché. bu dalul. ah man am lu ci camp Modou Lo ci camp Boy Niang. Ah, ci ñoom ñaar seen camp. Hmm. seen i côté euh, seen i bëreeru kii na méngoo na. seen i bërëm méngoowul de seen i bërëm méngoowul. d'accord wute day bëri Modou ak foo ko mënti yegg day bëri boo ko waree ndomb day bëri boo jëlee tànkam day bëri. Hmm? boo jàppee ngeen ngeema boo jàppul ngeem bi bu jàppee day bari moom boo ñaanee da lay liir di xam fu muy préciser boo jàppee tànkam mu lucide laa wax de da ciy bu jàpp bu jàppul ci lay gën a mën a wuree sax mais boo jàppee ngeemam du wure. du wure de. Mhm. Ah. kan moo ci ëpp avantage ndax ñoom ñaar ñëpp ay kii bagarreur lañ. non kenn ki mooy bagarreur. gan Moodu. waaw la par rapport ak Boña Boña du bagarreur moom lépp lu kóom bu koy jarul sax ne kóom bu koy dóor da koy préciser da koy xam ne li muy samp nii dina dem wala du dem dina dal wala du dal. waaw moom loxoom balaa moo jóg sa loxo jóg ba pare. sa loxo buy jóg. ak loo xam lay wuyu soo benn lay doon. ok mun naa jeexee ci xeex. ñu xeex ñoom ñaar. kaaw am ci jàpp daal. non man gisuma ci kaaw de man gis naa ci daal benn bi léetoo jam ku koo bi daal kii daw ñëw bagaar ñu daw jàppante waaw. non man ba léegi dama gis ma kaaw dëbb gis ma kaaw dëbb dina am kenn en tout cas ku ci njëkk a touché moromam daal kenn ku bi maam sa kaw benn lay doon bu moytuwul waaw. ndax mën na ci am. Hmm. je sais pas loolu ñu ah. mën na am mën na bañ a am waaw. li Modou wax confirmation laay bëree loolu nag ñu koy defee le fait que mu dugg Pikine bu defee am fa sept victoire xam huit victoire. mu des ak ki nga xamante ni moom mooy Boy te Modou Lo daan Boy Niang humiliation la. ah mais bien sûr humiliation la kay biir Pikine parce que koo xamante ne tey dañu ne dugg nga Pikine daan nga ñëpp ci nit ñi li wax waxuma ko nag nee nañ daan nga ñëpp ba pare mu ñëw am Boy Niang ah loolu dafa war a gën a motiver waa Pikine loolu dafa war a gën a motiver waa Pikine non ak lu mënti am ak lu ñu mënti téye seen xol mm-hmm. yaa ngi dégg dañoo war a xalaat ne bu kii ñàkkee pikin humilier nañ leen. kon bis eh, lay doon ak lu ñu mënti téye seen xol nañ bàyyi lépp taxawu ko ba combat bi jeex après bu ñu po bu ñu paree nag ñoom mag ñu toog seen biir waxtaan trouver terrain d'entente mais pas ñu ne. ñu ne am nañ problème rek dañuy boycotté Boy ñax non buñ ko boycotté seen indi na leen lu nekk indi na leen lu nekk bëri na daan na yaa ngi bëri na ñàkk na mais tamit nañu xam ne rek ak lu mën tam rek doomu pikin la waaw bëñ ak làmbañ nag ñoo dëkk mais lu mënti am rek nañu xam ne doomu Pikine la yaa nañ ko dooleel même bu ñu ko dooleel woon nañ dooleel pikin même bu fekkee dañuy demee saat yaa ngi dégg dooleel Pikine loolu la da xool rek géej waaye fii ba mu waree dajeek booy ñaag ni mu fi def ñëpp ma dooleel yaa ngi dégg mbër yëpp a jóg ñoom ñëpp jàpp ci na na jeex na jeex na te alhamdulilah mbooloo mooy doole après bu ñu paree nag. ñu xool nu ñuy def pour trouver terrain d'entente mm-hmm. waaw mais buñ ne rek bon am nañ problème ñii dañuy dem ñii duñu dem déedéet du noonu c'est pas comme ça la vie mm-hmm. ah man nag conseil wu ma leen ci ci loo xamante ne ma dugg sax seen mbir mais dama na jox sama point de vue ñun ñëpp ay sportif lañ yaa ngi dégg nañ ko ñëw taxaw comme nañ ko war taxawoo rek lu yàlla def ñoo xam ne loolu la yàlla dogal waaw. Mm-hmm. non buñ ko seetaan ndax seen seen seen seen doom la. don Pikine la waaw drapeau Pikine lay représenté loolu la comme Modou Lo nu muy représenté drapeau parcelle man waxuma ko pour far ci côté booy Niang faraluma ko faraluma ko tey faraluma ko suba faraluma ko gannaaw suba mais sama point de vue lay joxe. yaa tey Modou Lo conservé li nga xam te ne moom mooy titre roi des arènes bis bu ko defee mu nekk nag a part ki xam te ne moom mooy Yékini il est le seul lutteur boo xamante ni moom moo fi conservé trois fois li nga xamante ne moom mooy titre bi tey Modou Lo tamit conservé titre roi des arènes am loolu tamit lan lay def ci làmb ouverture day am wala day tëju. waaw xam nga Modou Lo moom tey moom suweem bi yëpp moom mooy mu yóbbaale roi des arènes bi képp ku ko yor loolu ngay ñaan yàlla yóbbaale roi des arènes bi après nga dem toog sa kër féexlu féexal sa xol mm-hmm. moom nag suweem loolu la yaa ngi kon donc loolu noonu mbër bu ko mënti yor doone da ngay ñëw ba fii ngay jéem a ñàkk ci tournoi des arènes bi moom lépp lu mu mën dina ko ci def. pour téye ko waaw lépp lu mu mën dina ko def pour gagner titre roi des arènes bi pour mu des ci loxoom mais nag bés bu ko defee ba pare boobaa na ko gars yi wax félicitation xam nga la moto waa waaw parce que xam nga la moto tax muy doon mérite ci moom. parce que moom mooy seul mbër boo xamante ne dugg na biir Pikine def fa noonu kon donc gars yi nag dinañ taxaw na ko félicitation Pikine dinañ war a taxaw na ko félicitation ban mbër moom moo fay desaat pour bëre ah, mu ngi noonu kon donc waa Pikine dinañ taxaw na ko félicitation. kon maire Pikine ah, dinañ ko jox de parce que man sama sama combat booy ñaa duggul fi mairie bi de man man man maa taxaw ci bunt bi na ko du fii kon donc moom bés bu daanee Modou Lo bu daanee bu kii waaw man naa bés bu daanee sax man sama yoon nekku ci. waaw point point point point de vue rek laay joxe ah tey bu Modou Lo tey bu amoon ndam tey ah non sincèrement parler Pikine moom nañ chapeau nañ chapeau euh, Modou Lo waaw ñoom daal ñu ngi noonu en tout cas daal moom lu nekk dina ko def pour téye pour téye titre bi ba ñu gis seen état physique dafa yokk poids par rapport ak Boy Niang wàññi poids te gis nañ Modou ba mu bëreeg Ama ay deux mois lay toll mu am te loolu amul dara lu muy def ci combat am le fait mu yokk poids bi par rapport ak Boy Niang. Euh, li Modou la yokk poids mais Modou la mu ngi ci woon compétition mu ngi mu ngi doon compétir yaa ngi def parce que moom moment boobu noonu xam bu fekkee da nga ñëw rek euh, nga compétir bu pare moment bu sa yaram bi son yaa ngi dégg ak li ngay jox yëpp ci entraînement da ngay user da ngay jeex yaa ngi dégg il faut nga jéem a nekkaat ci xool noo jéem a yokkaatee tuuti sa poids pour mën a bokkaat ci beneen compétition bi ngay jëm waaw loolu moom moo tax mais daal euh, ci wàllum kii euh, Boy Niang ci li mu wàññi poids mm-hmm. ak bien normal mu wàññi poids parce que gisoo ko gisoo ko nu mu tolloon ci yeneen face à face mm-hmm. boo xool nga xam ne kii dafa yokkoon kon daal combat bi liñ ci mën a xaar si ñaari mbër yëpp dinañ joxe. ah ci sama gis-gis dinañ joxe de mais na ci kenn bañ a ñam coup boo xaman coup bu porté la. kon ku ci jël coup bu porté. boo xam ne dañ naan lii coup bu dal la ah mooy loolu de boo motu di nga jéem a yàq sa combat de te ngal la na ci concentré wu rek waaw. concentré mhm, baax a baax. Euh, mais na ko bàyyi xel rek. ñoom ñaar nañ bàyyi xel Boy Niang. téere laa lay wax de <laughs> waaw. Modou ko sous-estimé ci benn boor booy dajee ñu ne la kii sa rakk la yaa ko jiitu ci làmb yaa ko ëpp expérience ci làmb bàyyi ko xel bu baax parce que guddi yi gisul dara dara dara dara wul le roi des arènes te gisul dara dara da lu sas bu métti moo tegu ci kawam. kon dafay am ci kaw waaw du pression ndànk sax parce que moom am na lu mu dugg def ko biir biir Pikine kon donc fii nii barki boo Ndiaye ñu daan booy ñu daan ama kon pression bi day gën a nekk ci moom. waaw waaw seen daanu mu des moom mu yor drapeau Pikine soq daanu kon donc fii moom. moo gën a ne moom moo kee moo gën a nekk en l'aise. waaw wax naa ko dafa relaxé. waaw kee moo gën a nekk en l'aise. <coughs> moo gën a nekk à l'aise. <coughs> Uh-huh, moo gën a nekk à l'aise. moo gën a nekk à l'aise. que par rapport di ko jaajëfalaat bu baax a baax ko di ma ko waxee dañ ko fekk mu taw muy Lac de Guiers numéro 2 di ko jaajëfalaat bu baax a baax mais suma benn frère boo xam ne suma bokk pas-pas la mënu ñàkk muy Nigeja di bu baax a baax ci li nga xam te ni yónnee nga ma ko bagage yu baree baree bari di la ñaanal mon frère <coughs> yaa xam li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke yonente bi yàlla aar la yàlla sàmm la yàlla bàyyi ñoo yow yàlla bàyyi ñoo kilifa gi nga nekk un frère boo xam te ne dama la estimé nga nekk nit ku baax nag wax dëgg yàlla kontaan naa ci yow bagage yi bari na loolu frère Nigeja Dia taalibe sëñ Babacar Si waaw kooku moom sama waay la nit ku baax la ndeysaan Dia suñu frère man du ma mbërëm de man frère am la da koy faral di wax sax te wax na dëgg dafa am lu ñu bokk te mënuñu ko séddoo waaw li muy yëngatu nag yàlla na ko ci yàlla jàppale bu baax a baax waaw góor gi moom moom lañ bokk ma ak moom te mënuñu ko séddoo waaw mais vraiment mu nekk nit ku baax nag mm. nit ku ñàkk ci ñaan heure bu dugg see rek dina lakk foo nekk ci loo nekk jàmm sante ak man barki démb ba mu fi mujjee fii la ñëw seet si ma fii te defal ma ko dara waaw vraiment maa ngi lay ñaanal yàlla na lay yàlla yokk waaw ci sa li nga nekk da ngay yëngutu ci. waaw dina instant bi benn kii benn boutique bu nganda moom laay wax nii moo tax man kay Solman yi jox na ma ci. jox yu bari sax. Ah. jaa waxante ñu woon lool de daggal nga yónnee ko. dama ko suuf. waxuñu waxuñu woon lii dama ma da loo dara maa solal ci 31 décembre. Hmm, ci diggante ci diggante papa ak doom. maag ah, yow ah maag yow. Ah, jaa waxante <laughs> voilà yéen nag waxanteel ñu. fils de Sadio di ko souhaiter un joyeux anniversaire naan la happy birthday to you sama chéri sama xarit nit ku baax nit ku yàlla baaxal naan loo dund doyul champion nit ku baax di wax yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla ar la yàlla sàmm la yàlla def la roi des arènes nit ku baax nag nit ko xamante ni sans façon fils de Sadio yow da nga baax ko doomu Sadio Ndiaye barke yurente bi loo dund doyul sama xulóowaal bi sama xarit man yow rek laay topp fils de Sadio mu nekk xale boo xamante ne ndeysaan Pikine la nekk champion nekk écurie Tay Shinga Euh, day day waaw day day day def anniversaire am muy le premier masaroq rek may ko buzz ndax sama série la woon dafa am lu ñu lee woon mais dama koo fase keneen ki daa amoon ci lu mu nekk comme que ñëw na léegi fase naa léegi maa ngi jëlaat kooku noonu. kon fii sa Sadio da ah, buzz am kañ la lundi. bësu bësu com bësu bësu combat bi. mais fils de Sadio joyeux ah. maa ngi lay déggee de maa la koy souhaiter au fond du cœur. Ah. yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla yokk la. nga doon champion mag a mag a mag a mag ci barke Seydina Mohamed ah yàlla na nga ko yàgg a féete di la bàyyi yàlla la yàlla bàyyi ak sa waajur bu góor waaye nag sa baaba yàgg na maa dàq ji de. Père Sadio eh. non kooku tëbloo na miir bu nekk du ma la ko baal de. <laughs> waaw da koy fay ci fii de bu ñu dajee nga xam lépp dëgg la maa yow danañ bëre <laughs> mais joyeux anniversaire ah. ah nga nuyul ma père bu baax a baax. Ah. booy contrat bi man ak yow. jeex na comme que kooku pare na léegi instant dama lay xaar ba jamono neex après nga ñëwaat maa yow ñu nekk at ay séeréer mais instant da ngay xaar te bu ma yàqal di la waxaat rek ah kontaan naa ci yow moom bébé yow loolu dund doyul la de guerre lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo ah di sant ñëpp di gërëm ñëpp ah di baalu àq waa cité bi sama yaay yi fi nekk sama papa yi waa jàkka ji yaa ngi dégg waa géejo waay surtout waa géejo waay su ma limee damay juum ñu ngi leen di baalu àq ñoom ñëpp. di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm biir Géejawaay suñu rakk yi nga xam ñoom ñoo am combat yàlla na yàlla jàppale yàlla taxawu leen yàlla may leen ndam di ñaanal sama frère sama jumeau Alioune Seye 2 ah. non war balaa moo amaat combat day takk bare. Hmm, waaw. a jaaxal ma ñu lay jumeau loolu mooy jumeau fois ma am mu am aw mu bokk ci naqarlu bi. xam xam day siisu. <laughs> lu leer la ñaa am na combat moom kii la. kan na baay ba génn suñu doom ji. <laughs> na baay ba génn foofu. bu fa génnee mu soog a wax. waaye yow génne goo ci xal bu yow génne goo ci matt ci matt gu tàng nga ne nga ne da ngay laaj la dëgër. Hmm. waaw mais vraiment ah ñu ngi ñaanal suñu rakk ji rek muy Niang bu Ndaw yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko wér ak gudd fan yàlla may ko ci ndama ah. ndam lu rëy. accam mu ngi koy seede ci suuf yàlla nga am ndam lu rëy ci barki Seydina Mohamed ah di ñaanal euh, kii nu sax euh, Baye Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye jógee ci victoire xam waaw ñu ngi koy ñaanal baax baax ndam li yàlla na ko jikk mm-hmm. ci barki Alxuraanu Karim di ñaanal képp ku nekk biir écurie Walo am combat yàlla na ko yàlla may ndam su ma limee damay juum waaw. yàlla na leen yàlla defal jàmm ikir wàllu yàlla na leen yàlla defal jàmm ci barki say naam moom yàlla na yàlla boole xol yi surtout xol yàlla na leen yàlla boole yaa ngi de képp koo xam ne am nga lu la metti bul ku guuxal nit ki fexeel bu jàkkaarloo yoo nga wax ko waaye yàlla na fa yàlla def jàmm ikir wàllu ci barki Seydina Mohamed yàlla na leen yàlla defal jàmm ci kaw bu ci suuf wasalaam. suba la 31. ci Fallou Ndiaye ñëwaat la promoteur numéro un ci diggante Diop 2 ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Thiatou Nguéweul un combat espoir xam nga Fallou Ndiaye moom espoir yi. Mm. ndax ñi muy ñi muy ñi muy lancé bari na ay Ada Fass ak ñooñu ñëpp moo leen lancé tey mu focus ci booy yooyu noonu la 31 suba incha allah. waaw mais grand Fallou ñu ngi koy ziar moom du mës a dëgg lu naqari. te boo leen seetloo. Uh-huh. jeune espoir yi muy génnee yëpp. mooy yoo xam maanaam yow boo toogee di seetaan sa kër sax. da nga xam ne Fallou Ndiaye mu ngi liggéey mm-hmm. na jàppale rek bu mu bàyyi waaw grand Fallou ñu ngi lay ziar baax a baax di la ñaanal yàlla yal na la yàlla jàppale mm-hmm. yàlla taxaw la ci lépp parce que ni ngay dimbalee jeunes yi ñun ñëpp dañ ci am mbégte ah. parce que ñun bés dina ñëw dañuy pousse ak lu métti métti dañuy pousse suñu rakk ñooy ñëw mm-hmm. te gis nañ ñi ngay jàppalee jeunesse bi ñi ngay jàppalee booy yi nga xam ñoo ne ci làmb ji di leen génnee pour ñuy fekk ci seen mag kon donc ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla taxaw ci lépp ci barke Seydina Mohamed yàlla dooleel la képp koo xam ne autorité nga gouvernement bi nañ ñëw jàppale Fallou xam la mu nekk nit ku baax nit nit kuy dimbali jeunesse bi nag man xam naa damay gis yenn boo xam ba ma waxee ñu ne ma Fallou moo tëgg sama combat kon donc yow yàlla na la yàlla jàppale waxuma ko pour dara nag parce que li ma gis sama bët la yaa ngi dégg ko sama nopp kon donc am na loo xamante ne dëgg dëgg daal dëgg rek la ma dëgg waaw journée bu neex la ah, parce que ñaari jeunes yuy waaj a génn la te yàlla na yàlla jàppale ñoom ñaar ñëpp que le meilleur gagne ah. suñuy rakk lañ. te jàmm rek lañ leen di yéene nañ gën a góorgóorlu xale yi ne ci làmb ji làmb ji kenn moomu ko nañ góorgóorlu ñoo fekk seen mag ci kaw bëreeg ñoom ku ci yàlla may ndam nga xam ne loolu la yàlla dogal. rendez-vous suba le 30 ans. le 31. Fallou Ndiaye aye promoteur promoteur numéro un bi. waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm. bu kenn tardé na ñëpp ñëw seetaan si. incha allah bu neexee yàlla bu ma nga xam nga rek fan yi moom mooy loolu. waaw xam nga rek yow moom yow moom yow moom yow moom mënuma la mënuma la bañal dara mooy lool te sama sama sama doom nga sama xarit nga maa la bëggal sama bopp yow tamit euh, xaw ma kan moo lay ñaan si waaye ku lay ñaan si dina ma neexal ak doole de. ndax sinon. non sinon du ma la meex kii nu mu tudd mbër mi waaye. Bébé Saloum non Bébé Saloum day siisu quoi. Ah, diggante diggante diggante papa ak papa ak doom. mu ciy wax wax genre wax yi mel noonu même genre bàyyi siisu yi nag yow tamit ah bàyyi si ngay def lii diggante bi yàlla moo ko def ci aras sama doom la. kan Modou Lo bàyyil jàmbur bàyyil jàmbur bàyyil sama doom yi nga dañ koy tegal siis kii kii beneen affaire la sinon maa yow dinañu dinaa la koj de xam nga fu ma lay koj. Hmm? Lac Rose laa koy koj. sinon sinon sinon lëndi bu ma voilà sinon bu ma rombee rek naa la dugal ku. wala sama doom ñi ngay waxal ah. non bëgg ci yow bëgg ci yéen ñëpp bëgg fi ñu doom nday fi ñu xarit. Mansour Mansour Ngok ah? borom borom borom borom suppu kànje. Mansour borom suppu kànje bi ah. Eh. yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla guddal fanam. yàlla ko def ko un grand caméraman bu a mag a mag a mag bu ñëpp di coow ci dëkk bi. Mm. na xale bu baax la. waaw waaw moom mention spéciale mm. waaw mais comme xalil ñëwul mm. ñu ngi koy ñaar yàlla ko yàlla defal jàmm fu nekk mais tey sama doom dayee ñëw Mansour Ngo no xale instant day xaar fu mu ne ba dernier virage après ma wax ko waaw moo tax ñaan bi ma koy ñaanal dama koy denc sam biir xol ba ma gis ko rek ma sotti ko eh, mais tey Mansour mbaadi mbandinkool añ ko ni mooy ah. mbaadi mbandinkool ana kam mooy laal albo daaw daaw daa duniyaa kono mbaal daan loddu ala alkana fasi biinte mal di mati bi mbaal di mati sama ngalte la soto ngalte la soto bi ngalte soto sama mbaal ak ala nin kiila alin so duwal alba dawoɗa alkata sérifoti baynonkel joolal ha fulol sérérol be si wo si duniya kono mbaldana ɗo duwal sérifol ba dawoɗa sérifol ha alba dawoɗa duniya kono mbal tentola mbal jeyla allah duwa kafo balte bi ngal tella soto sérifol mumba casamas mumba amdani sérifol baŋer ibe Medano la Douala ah. sam papa Moustapha Sylla bu Taïba maa ngi koy sant di ko gërëm mu faamaa bete ba mbee tentu la mbee jay la ila duwaa fo tatanam ba Gambinkool mbee tentu la mbee jay la Ziguinchor Sédhiou Kolda moro ba daawo daa mun kaa fo ŋunkoo mbaal daano la Douala ŋalte la soto mam moɗo dani no mbalte la dani la ŋalon naga ŋal batandi le mais alsa hakko tuñe alin so duwala mbaɗɗinkol maa ngi sant waalo waalo yeeg ñëpp séeréer yi ci sama côté yaay maa ngi sant képp koo xam ne séeréer la sama combat bi passé nga téye sa loxo ñaanal ma ci yàlla la yàlla fay yàlla la yàlla fay yiw yàlla la yàlla fay tiyaaba dërëm boo ci def yàlla ko yàlla def xéewal ndax sama yaay moom ci côté séeréer yi am na ñoo xamante ne dañ ma cee ñaanal bu baax a baax maa ngi sant ñëpp waalo waalo yi pëlu waalo yeeg ñëpp ñu leen sant di leen gërëm di la sant baax maa fii mais temps yi moom.